alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat wa tubaarakul xarakaat wa tudaful xasanaat summa salaatu bi akmaliha maa salaami bi atamihi ala ashrafi xalqihi wa akmali rusulihi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 mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu njaay yu yàqu yi tuddaloon naa la ci juróom-ñeent tey may dooreeg yow ci fukkeel ba ñu koy tuddee bayul xarar loolu dafa bokk ci minal buyuil fasidati te mooy jaay loo xam ne xamuñ kemba sombanam toll xamuñ melowa li gën a bëri dafay nekk ci lu ñu tabax ci risu mooy njar njar jël soow mi sotti ca ndox di ko jaayee pirép soow xaraam na jël dugub ju bon ji jaxase kook dugub ju baax di ko jaayee pirép dugub ju baax ju ren xaraam na noona ca gerte ga noona ca mboq ma jël ngooñ mi jaxase kook mboob mi di ko jaayee pirép ngooñ yooyu yëpp xaraam na yëpp dafay dugg ci buntab xarar ndax xarar moom lu yaatoo yaatu la booba sax jaay lii dañ ko daan def ba lislaam ñëwagut daan jaay njaayam xarar moo xam ne bayul xasaati lañ ko daan tuddee buñ bëggaan jënd tool wala ñu bëgg jënd terrain duñ mën a wax ne mètre bi fii la yam dañ lay jox saan rek ne sa saan daal fu mu toll fu mu xem rek jaaye nañ la ko ci nangam xam nga ne loola xarar la dafa nekk lu araam wala ñu jaay ay yére ransale ko wala ay xar takk sa bët ne bu sa ta bu sa bu lexo bi tege rek moom lañ la jaay wala ñu jël xeer ne la sànnil wum dal rek moom lañ la jaay yooya yëpp dafay bugg ci bunta xarar jaahiliyuuna yi ñoo ko daan def njëkk lislaam di ñëw ba lislaam ñëwee tere façon njaay mu bon mooma mu ñaaw mooma ci njaay yiñ tere bokk na ci bayu najas bayu mooy njaayam xëbalante rek njaayam suub rek mooy tey waa jaa ngi jaay marchandise bu gisee client yu dugg ca biir rek am ñu ñëw ñu jëndut raaxaloo ca bu ñu waxantee dara rek ñi wax lu gën a kawe prix ba gën a cher menn ñuy jënd fekk jënduñ dara marché bi dafa lëj ak a lëndëm billaahi ña ko nekk ña ca xam rek ñoo xam la ca marché ba waa ji day ñëw fekk waa jaay mi ngi teg ay jiinam wala mu teg ay télévision am loo teg mu ne fanweeri junne mu ne ah man de mën naa ci deux cent mille fayu dara jëndu dara yorewul tus waaje ne ko a ah yow tamit da ngay yokk boo yokkut kat ki njëkk a wax yow mu njëkka a wax kat da ngay jéem a wax yokk ma man laa wàññil ñi mën a juboo muy bësanteeg moom ba ca ay deux cent mille yooya ne comme kii moom ko njëkk kii moom laa njëkk a waxanteeg moom laa koy jaay di jaay ak maandu fekk yow mii lay tuur lëndëm jëndu dara su paree ba nga dem rek mu xoo ko am lum ko ca sedd la ca des mu dugal ca poosam yaa def lu araam kooku mooy jaa mooy bayu najas yonentu bi tere na ko boo demee ci mu watta mi ngi koy firee mu ne daal mooy an tuutiyahu bi silatihi akthara min thamaniha waaye walaysa fi nafsika ishtiraawuha fa yaqtadi bika gayruka mooy li ma la misaalal noonu rek jong sa marchandise mi muy wax ay prix yoo xam ne moom ci boppam jëndut waaye dafay bëgg gaa yi roy ko ca ngir mën a jënd kooko dafa haram hadis boobu Tirmisi yu moo ko indi Abu Daawuda mu bokk ca hadisu Abi Hurayra yonent bi benn baat rek la def muy hadis ba dafa ne laata laa su kon boo demee ci Abdullah ibnu Abi Awfa mu ne an su kooku akilu riban la xaa inun képp koo xam ne yaa ngi xëbal ci marchandise di wax lu newut ci yow ngir bëgg ñam ne ci ñoom man ko ca wala ñi man ca lu ko ëpp yow mooma lekk katu riba nga yow mooma xorkat ga def nga lu bon yooyu yëpp dugg na ca sax euh, factures yi yow jaaykat baa ngi nile le jaay nga waa ji facture nga fact yaa ngi ko jaayee war ko bindal facture cent cinquante mille sab client la waaye jubut mu ne damaa bëgg nga defal ma ci facture bi deux cent cinquante mille nga bind ko ne ko mu dem wane ko ci société ba ñuy fay yaa ko dimbale ba mu lekk ñaar fukki junne waa ji bu ëllëgee yowmal qiyaam yéen ay bokk séddoo bakkaar ba ndax yéen a bokk dugg ci wala taawanu alal ismi wal udwaan la yàlla tere woon yow def nga ko bu ñëwee ne ko doo gënal sama bopp nit ku nekk bàmmeelam lii bu yàlla ne dana jar kenn mënu ci dara damay sat sama bitig bi xaw la woon man daal li ma la jaayee dong laa mën a bind yow nag foo koy mën a dem di yokkaloo ji yaa xam sama yoon nekku ci yow kon ku ragal yàlla nga ku maandu nga soo ëllëgee yonent bi dana la félicité ki jëf juróoy jooj nga def waaye nag gëmee ko yàlla dem nga bam naaj soqee kookoo ah man kat lii su ma ko jël xaw fu ma jëm. dëkk bi dafa waw moo raw doj réew mii nangam ak nangam ba tax nga faktiire loo xam ne nekkut ak li nga jaay xaraam na nañ ko bàyyi lu bari la ci marché bi. njaayi yonentu bi tere muy fukk ak ñaareel ba mooy njaay meññant a fekk xéwénagut di jëgut bul jaay tàndarma ji te mën a guñ koo lekk. sa toolab gerte bile bul ko jaay te mën a guñ koo gas sa dugub jile bul ko jaay te mën a guñ koo mbool mbool nag baat bu luxa la ñu dëkk ca àll ba dëkk saalum ñoo ko xam waaye fekk mën a guñ koo mbool daal te mooy jël dugub ji di ko dugal ci safara wi bu demee ba pepp ya ñor nga seet noo koy jëfandikoo yee na koy siis siise yee defee loolu mooy mbool kon yooya daganut yonent bi xaraamal na jaay meññant te fekk xéwee na gut ñi man koo jëriñoo moo tax Buxaari yu moo génnee hadis bi ak muslim Abu Dawuda mu bokk ci hadisu Omar Omar ibnul Xataab mu ne naha rasulullah sal an bay thimaari xata yabduwa salaahuwa nahal baaxi mubtaa yonent bi tere na baayaa ja tere na mubtaa ba nahal baaia wal mubtaa yonent bi tere na ka koy jaay yonent bi tere na ka koy jënd bu leen jaay meññant te fekk xeween a gut xam na ñoo xam ne nag seen toolab gerte ba bañ koy jaay sax ruuja guñ commencé nañ koo jaay jaay naa la ca mi mbaam ana yaa ngi jël xaalis di encaissé ñu ne mbaam ñaata nga ne sept cent sept mille cinq cent su sama jox ma léegi sept mille cinq cent ma encaissé lekkaale sama tool bii su ma demee ba gas ko naa la jox mbaam mu ne sept cent maanaam sept mille cinq cent loolu boo ko waxee araam na waaye su ngeen juboo woon ci ne ko jaay ma nañ wax piri ba rek ba juboo ca ngeen ngeen juboo ci prix dix mille mbaa prix cinq mille mbaa sept mille ngeen date ko ci jamono jee bu ñu yeggee janvier danaa la jox nangam ci saa koy gerte mbaa ci dugub ñi xam melowa dugub la am gerte la mboq la xam tonnage ba ñaata barigo la ngeen juboo ca waaye sartaahuloo ko ci sa tool bi nga xam ne jéexagoo ko wala boo ko jéexagu boo ko jéexee ah, ah, tabaarakallaahu ah, kéexagut Euh, euh, feeñagut wala bu demee euh, sampagut wala bu sampee dijjagut wala bu dijjee tamit di di dijjagut daal nga door di ko jaay boo ko sart ci sa tool bi rek xaraam na waaye boo ko sartoon ca poids ba wax jamono jaag weer wa dara nekku ci foo ko mën a jëlee yaa ci sa tool bi mbaa feneen waaye jaay tool bi fekk jihagoo ko wala ji nga ko waaye saxagut wala sax na waaye foccagut wala focc na waaye palpalagut Ah, yooyu yëpp xaraam na bu ca gerte ga di jëgut yooyu yëpp xaraam na kon yooyu dafa xaraam waaye boo ne ko nag mën naa jëndee dugub de six mille cinq cent ñaata bëri nga soxla nga ne ñett mu jox la xaalis bi nga dem kañ ngay fay si mu ne janvier la quinze jeex na dagan na su boobaa yow kon danga ngaa njëg njëgg di xaar luñ njëgal la. fekk date ngeen ko ca poids ba data ngeen ko ca jamono ja data ngeen ko ca melowa waaye su boobaa yow miy jaay di commerce bi yàlla jox la war wërsëg ragalal yàlla bul dagg boppam jëndee ko ci prix boo xam ne tuuti na ba jéggi dayoo nag loola tamit fekk loru rek moo tax mu dugg ci lii ngir bëgg a dundal njabootam su boobaa tamit nag yow moom la lislaam di wax ak ca prix ba rek waaye façon jëfal jëfandikoo moom dagan na dara nekku ci kon njaaya tabaarakallaahu di jaay meññant fekk di jëgut xaraam na yonentu bi tere na ko wax naa la ko wax na ko ci beneen hadis boo xam ne imaam ahmad muslim nasaayi ibnu majaha mu bokk ci hadisi abi hurayra ya yonentu bi ne laa tatabaahu thimaara xataa yabdu wa silaahu silaaha buxaari yu wax na ko ci hadis boo xam ne tabaarakallaahu dafa bokk ci hadisu anas mu ne naha an bayil inabi yonentu bi tere na jaay inab xataa yasuuda wa an bayil xabbi xataa yastadda kon loola li ci ñëw ci ay hadis tabaarakallaahu kenn xamut nim toll looloo waral nit ki bu amee tool dee ba muy dee ak tool ba ñoragut asaka warut ko ca dañuy bàyyi ñu wari donn ña buñ donnoo ko sa wàll mat nisaab mbaa mu man loo ko mën a booleeg lu man nisaab muy juróomi dabi wusux boo koy gam-gamlee ci xalil juróom-ñetti bërigo lay mat su boobaa nga door caa génnee asaka bu ko manqué dara waru ca su fekkee nag tool bi dem na ba ñor borom tool bi door a dee dañuy génnee asaka ja ba pare door a donn mu jeex asaka wàcc leen ca ñoom bu ca jaay. njëgg nga denc ko ren ba déwén door di génnee ci njëgg asaka loolu la ca lislaam wax kon ñu jar cee ñu jar naa bàyyi xel kon buñ jaayati suñ tool yi ci dugub te fekk euh, di jëgut maanaam daal mënaguñ caa mbool mbaa ñi mën caa lekk buñ jaayati suñ gerte yi fekk ma ngay mbereng biñ koy jaay daal di jëgut bañ mën caa buddi di yëy donte li wenn waar sax moo ca moo ca moo ca ñor te ñoo bokk benn jamono mën ngaa jaay lépp dagan na dara nekkut ci waaye bu ca dara jorut jaay ko xaraam na ca dugub ja ca gerte ga ca tàndarma ja ca mboq ma ca mango ja ca furi ba ca pataas yooya ñuy gas ak ñambi ya yooyu yëpp na fekk mu dijj bañ mën koo jariñoo nga xam ne taw mu baax ñàkk taw mu baax bu loolu amee rek dagan na bu ca yooyu amut daganut nañ ko bàyyi xel te di ko daw bu baax a baax mooy fukkeeli njaay ak ñaar yonent bi sallallahu alayhi tere fukkeel ba ak ñett yonent bi mi ngi ñuy tere bay'ul musaabanati bay'ul musaabanati nag mooy jaay meññant mu nekk ci biir njëdd la nga jaay ko tàndarma di ko jaayee prix lu ñu natt yow lii ngay jaay xam nga ko li nga koy jëndee kon xam nga ko mais li nga koy jaayee xamuñu ko tàndarma juñ natt ba pare mi ngi nii toog da koy jëndee nattale ci nattale tàndara ba ñu nekk ci biir ci kaw meññatam ma xamaguñ buñ ko wittee na muy toll nga bëgg koo jaayee loo xam ne witt nañ ko pare ba xam ni mu toll loolu araam na mu ngi mel ni sa fukki saa koy gerte yi le ñu sol ba pare nga bëgg koo jaayee ci sa toolab gerte bii nga xam ne gasaguñ ko waxuma la ba koy bàcc waxuma la ba koy bees door di ko sol nga koy jaayee ci luñ ko def ba pare euh, loolu yëpp dafa araam kooku mooy bayul musaabanati moo tax Buxaari yu wax na ak muslim Abu Daawuda mu bokk ci hadisu Abdullahi Ibnu Omar. mu ne na naha rasulullah sallallahu alayhi ba sallam anil ba musaabana nag wax naa la ko mooy jaay meññant ca ngéddam la ci tàndarma joo xam ne mi ngi nekk lu natt ba pare peese ko euh, muy rek marchandise muñ xam nam toll ci poids nga koy jaayee ci marchandise muñ xamut nam tollu ci poids yooyu yëpp dafa xaraam kon loolu yëpp nañ ko bàyyi xel bokk na ci yiñ xaraamal yooye cax ca lay duggee gàtt ñu rendi ba pare yàppam wa ñi xam ko duñ ko jaayee gàtt bu ñu rendee gut sa xar mii nga rendi ba pare jaayee ma ko sa xar mii nga rendee gut ma jox la bii nga jox ma bële xaram na yooyu yëpp dafa xaraam buñ ko xasee rendi nag nga koy jaayee ca yàpp woowa xëppalante ca xaram na borom borom ñeenti tànk yëpp ñoo bokk xeet yàpp xelam fii yëpp ñu naan ki yàpp xar la ki yàpp gëlëm la bii da ma ci jox ñaari ñaari kilo ma jox la ci bële te ñoom ñëpp nekk borom ñeenti tànk tamit dafa xaraam yëpp benn xeet la kilo bi yàppab kilo bi yàppab xar kilo bi yàppab bëy kilo bi yàppab gëlëm donte le nag buñ koy jënd ca marché ba sax prix tolloo yii buy xarma mën nañ koo jaayee 3000 yële ñu mën koo jaayee ay 2700. waaye nag buñ dese desu lu dul essence wante rek ñooy tolloo net yeddan bi yaddin mislan bi mislin waaye bu ci xëppalante amee rek xaraam na ndax borom ñeenti tànk yëpp wenn xeet lañ waaye nag yi naaw mel ni cokkeer yeeg tabaarakalaaw ganaar yeek kanaara yeek yooyu yëpp tamit aw xeeti boppam lañ daganul ci xëppalante yeddan bi yeddin mislan bi mislin njaaye tamit ci bi tere bokk na ca bayul munaabasati wal mu laamasati loolu wax naa la ko jaayili ñoo ko daan def nit ay ñëw daal fekk yëri buñ leem mu sànni loxoom ne bu loxoom dal rek booba moom lañ la jaay walla ñu takk ay bëtam ñu ne nañ takk ay bëtam bu mu teg loxoom rek moom lañ moom lañ la jaay wala ñu ne nañ ko wantale ca noona bu dal rek moom lañ la jaay ci ay saam te saam ya yemuñu xeet ya nekk benn ak yu mel noona kooku dañ koy tere ndax xarar la ak xabnu naxee la nga ca lu ñu wóoluwut tamit ak muccam ma nga ca ko nit ku ñëw ci yére yuñ leem mu wax geneen góor ne ko bu ma laal rek ñeexal na la ca ak njaay jaay naa la ko da koy jënd loolu moo kii sa cër kooku dafa xaraam buxaari yu moo génnee xadis bi ak muslim abu daawuda nasaa mu bokk ci xadisi abi said al mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil mu anil anil munabasati ñu ne ko mooy lan mu ne wahiya tarxu rajuli sawbahu bil bay'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanfuru ilayhi wa naha anil mulaamasati wal mulaamasatu lamsu sawbi laa yanzuru ilayhi jaay naa la yére bi rek waaye doo ko xool duñ ko lemmi duñ ko firi yow daal dañuy woo beneen waay bu loxoom bi tege rek mooy moom laa la jaay nga dem ma dem ni kitoo kooka xaraam na te nag bëri na. beneen bi ci tegu fukkeel ba juróom ci njaay yiñ xaraamal ci dëkkee ci teeru bi xam li xew xam prix bi. xaraam na muy jaay ki dëkkee ci àll bi xamagul li xew gatandu ko ko rek ci ci marché bi ñëw rek xamagul li xew ci marché bi nga ñëw rek gatandu ko ko su ko defee nàndagut dëkk bi miinagut ko buy ca àll ba sax buy ca euh, Italie nga ñëw bees Dakar lañ lay tuddee ni Dakar amee nag ci muudu muudu yi ni la daqaar amee tamit laaw ci Ndakaaru bàyyi ko ca kaw gare rek xamagul lu xew. yow mi xam ruq yeeg ruq ruqaat bëgg koo nax ci jënd ko ci moom prix wala nga ne ko tegal nga ma ko fii ba marché bi tollu nangam ma jaayal la ko bëgg koo kaañoo. di ko dimbali ko bañ koo dimbale kooka dafa araam yonent bi wax ne bu leen di dajeeg gawar yi di jënd ci ñoom ci lenn ci ñoom ñenn ndax loolu ta naajus la dafay araam moo tax mu ne wala talqu rukbaana wala yabi' ba'dukum ala bay'i ala bay'i ba'din wala tanaajasu wala yabi' haadirun li baadin Buxaari yu moo génnee hadis bi ak muslim Abu Daawuda yi mu bokk ci hadisu Abi Hurayra parce que waajaa nga bàyyee ko ci àll ba rek indi dugub xamagut li xew ci dëkk bi ci marché yi nga gàttandu ko ko walla mu indi gerte ñor ñaare xamagut lu xew nga gàttandu ko ko bëgg koo jënd ca noona nax ko yooyu yëpp daganut wala mu ñëw ci dëkk bi nàndagut nga bëgg koo ràngam marchandise moo xam ne tabaarakallaahu moom du ca am dara lépp yow yaa koy kaañoo. mu mel ni yaa koy dimbale maa koy jox marchandise fekk da koy dimbali koo rek yooyu yëpp dafa xaraam fukkeel ba ak juróom mbenn lislaam dafa tere jaay xaj fuqaaw yu wuutee ci njaay ma saafi yu ne jaay xaj daganut aslan laa yajuusu bay'uhu aslan xaj bu mën a doon nag abu hanifa ne dagan na jaay xaj jariñoo njëgg waaye sib nañ ko Malick ñëw na nekk ci digg bi mu ne xaj bi dagan a jaay mooy xaj boo xam ne dañ laa digal nga jàpp ko xaj boo xam ne dafa lay wattul sa mbay mi mbaa mu lay wattul sa jur yi wala mu lay rëbbali ngay lekk di la dàqal sàcc yeeg yu mel noona booba xaj dagga naa jaay waaye bu dul ñetti xaj yi Malick ne na jaay ko xaraam na moo tax ma Malick ñoom Malick ne ya joosu bayul awal wala yajuusu baycu thaani fa kullu ma laa yajuusu ittixaasuhu laa yajuusu baycuhu lii mooy Malik Shaafiiyu fi xurmati baycil kalbi loolu la gëm kon jaay xajangoog li ci fuqaaw yi wax maliki yu na yi Shaafiiyu na yi xanafi yu na yi ñoom ñëpp nag ñu ngi wutee ci hadis bi yonantu bi wax yonantu kat moom ci boppam moo ne naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam han samanil kalbi kooku ibnu Mas'ud moo génnee hadis bi mbooleem solokatu hadis solo nañ ko yonantu bi ne tere na njëgu xaj aa wa mahril baghi ak cana njaalokat waxul waanil kaayini ak neexal bu xaaba kat bu xaaba kat nga neexal ko cana njaalokat njëgu xaj ñett yëpp yëpp yonent bi tere na ko tere ga nag moo cay des nag Abu Hanifa ne tere si biir rek la Malik ne tere ga mooy ñetti xaj buñ ca génnee mooy tere goo xam ne boo ca génnee ñetti xaj yañ tere waaye yooye bokkuñ ca yañ tere saafi yu tere gi tere taxrim la dafa araamal xaj bu mën a doon la bu mën a doon xanit kër bi la wax mu dugal xaj yëpp mu des nag fukkeel ba juróom-ñaar. mooy jaay lu mel ni janax yi ak coyak kaña yeeg wel yeeg bodom yeeg muus yeeg yu mel noona ndax jaay ko dagan naam dafa haram boroom xam-xam yi dañ cee wuutee ñii ne dañ sib nañ ko yu mel noona waaye la gën a wér dañ ne su fekkee loola xam nañu ko bëgg di ko lekk bëgg nga kaña di ko jaay ñi jaay la kaña dara nekkut ci yaa bëgg pitax ñi jaay la ko dara nekkut ci yaa bëgg sikóor gi ñi jaay ko waa dem rëbbi jaay la sikóor gi dara nekku ci yaa bëgg lëg waa dem tabaarakallaahu rëbbi lëg ñëw jaay la ko dara nekku ci ndax amul benn yax ci hadis mbaa ci alxuraan bu yaxal ne jaay sikóor xaraam na mbaa jaay lëg xaraam na mbaa jaay bodoom xaraam na ak yu mel noona moo tax kon nag dañ koy bàyyi ci cosaanam ndax cosaanal mbir yi moo doon dagan moo tax boroom xam-xam yi loolu lañ ca wax yi lépp daal comme ñu ko bëgg nga fi te lislaam xaraamul ñu lekk ko nga wuti ko jaay leen ko dara nekkul ci mu des fukk ba juróom-ñett jumtukaayu foy yow miy jaay lépp loo xam ne jumtukaayu fola ñi koy tëgg nit ñi di fecc loola jaay ko xaraam na muy jaay mbiib yooyu ñuy mbiib nit ñi yëngal seen tànk ya xaraam na jaay tamay nit ñay tëgg di fecc xaraam na jaay ndënd ñi koy tëgg di fecc xaraam na jaay peru mariage yi ñi cay carte xaraam na yooyu yëpp dafa dugg ci nga xam ne dafa xaraam ñi di ko jaay imaamu Nawawi wax na ko lépp loo xamee ne nii dafa nekk jumtukaayu fo forek moo xam ni que da koy soxlawoo tax mu fàtte yàlla soxlawoo ko xolam bi di waw yooyu yëpp dugg na ci jumtukaay yi xaraama jaay gitaar yaag piano yaag ndënd yaag riiti yaag. balambata yaak bombo yaak yooya yëpp bokk na ci jumtukaay yi borom xam yi dëppoo jaay ko xaram na ma kaana sababan li masiyatin min alatin aw adatin fa huwa masiyatun fala yasnau wala yabiu kenn waru koo defar kenn waru ko jaay ndax dafay dugg ci buntab minal mu minal muawanati alal ismi wal udwaan te loolu alquran tere ne ko wala taawanu alal ismi wal udwaan kon mboolem jumtukaayu fooy rek yëpp dugg na su ko defee tamit mennam njaay nga jaay ko ñaari njaay xaraam na kooku mooy fukkeel ba ak juróom-ñeent bayaataani fii bayaatin yonent bi tere na ko. ci hadis boo xam ne Abu Daawud indi na ko abi hurayra moo génnee hadis moo ko moo ko génnee mu ne yonantu qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man baa'a bay'atayni fii bay'atin falahu aqwasuhuma awi riba mu ne men na ku ko jaay ñaari njaay da ngay féetewoo ba gën a perte wala nga dugg ci buntab baa loolu mooy lan bay'ataani fii bay'atin lu bëri façon la mi ngi mel ni man mii maa ñëw ci yow jënd marchandise am oto ma jubóog yow oto bi deux million waaye ñi bokk juboo ne su weer wi dee laa lay fay deux million yi deux million yi ñu dem ba weer wi dee aw ma nga ne ma mën naa laa yokkal diir bi ñu defaat ko beneen weer wu dee mais da ngay yokkaat nga yokk ci deux cent mille kon menn marchandise mi xam na ñaari prix prix am deux million la woon waaye léegi augmenté na ba yegg ci deux millions deux cent kooku araam na maa ngi lay jaay marchandise mi ci deux million su ko defee nag waaye weer wa dee mënumaa fay nga ne ko nañ yokku nañ diir bi yokku njëg gi ah su loola booba loola araam na. yonentu bi tere na ko danay dugg sax ci ki leb maa leboon maa ñëw leb la deux cent mille weer wu dee weer wu dee xaw ma du ma la fayee nga ma ah yokkaat ci quinze mille wala vingt cinq mille ma yokkaat diir ba ñu jëmaat la quinze rek kooku mu jëm fu kenn xamut moom la alquran ne yaa ayyuhal laa taakulu riba ad'aafan fatan di koy gën ful rek moo tax dana bëri bor boo xam ne ba koy borom di jël. deux millions la woon waaye ba ñu jëlee intérêt yi tegu xaat ba mu defee ñaari xaat ñetti xaat yóbbu na ko ci dix million xam koo xam ne ba muy la kayitu këram gile huit million la te kër ga ëpp na quarante millions waaye tay la ca tegu ci euh, ay ay ay euh, kii yiñ ko teg boo ko calculé ëpp na quarante million mu gi ñàkk kër ga te bor ba du dara huit millions rek la woon yooyu yëpp dafa xaraam lislaam tere nag ko nañ ko bàyyi xel. yonent bi waxee na ko mu ne naha nabiyu han safqatayni fi safqatin yooyu yëpp ma nga ca an bayatayni fi bayatin kon yow boo bëggee boo ca bëggee génn daal jëlal ba gën a perte rek mooy ba ngeen njëkkoon a wax rek loolu rek mooy wax ja waaye boo jëlee bi gën a bari rek dugg nga ci buntab riba la nga koy tegu yëpp xaraam na buy ci bor xaraam na buy ci njaay xaraam na buy ci jëflante xaraam na bu mu mën a doon ñaar ba ci njaay yi mooy jaay ci sa kaw jaayu jullit ab jullit a ñëw sa magasin bi di jënd looy jaayee mu ne quinze mille mu ne fay naa dix mille ngeen waxante juboogu leen dem ngeen ba jege juboo man ma ñëw dugg ci biir waxante wi fay lu gën a seer li nga fay pour bëgg laa xëñ marchandise ma kooka xaraam na yonent bi wax na ko laa yabi ahadukum ala bayi aqihi xataa yabtaaxa aw yasar na nasaa yi moo solo bi mu ne bu kenn ci yéen di jaayati di jëndati ci kaw waxanteeg moromam na bàyyi ba kooka jënd mbaa kooka bàyyi boo demee risaala nag soril na ko mu ne su fekkee dañoo soree ci njëkk looy jaayee cent mille loo fay dix mille nga xam ne ñii duñ juboo mën nga caa dugg waaje bu nekkee ab faasix kàccoor la man nga man nga caa dugg ak yu mel noona boo demee ci fuqaawu yi rawoo niyoog ya ca xaju mawaahibul jalil am na yuñ ca setti ca wàll woowa waaye man dama lay wax yaxi xaddiis yi rek nga dem gëstu ji kon nit ki jaay nga ñëw dugg ca biir njaay ma ta juboo guñ xaraam na yonentu dafa koy niraleeg koy labat jigéen sànni ca kàddoom daanoo guñ fenn nga ñëw dugg ca biir labatam nga di labat xaraam na lu dul ki ngay labat ci kaw labatam nekk ab faasix ndaw si nekk ku baax bu ko takkee da koy yàq rek nga dugg ca pour mën ko koo xeeñ dara néewu ci waaye bu dul loola dugg ci xaraam na bokk na ci njaay yi waxtu wa njaay yëpp ki koy jaay bu jaayoo la ñuy jaay jaayu li ma wax yëpp mucc na ci waaye waxtu wañ koy jaayee moo jaayuwut xaraam na waxtu wu ñuy noddu pour julli juma ba ba ñuy sëlmalee diggante booba luñ fa jaay jaayuhut alquran a ko tere yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya li salaati min yowmi aljumuati fasaau ila dicrillah wa tharu albay'a dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuna suratul jumaa aya 9 loolu xaraam na fuqahaaw yi nag wuutee ci firi njaay ma ñu su fekkee njaay ma dafa tàbbi fa ñuy noddee nodd ñaareel ga te googu rek moo fi newoon sax li fi yonent bi nekk yëpp genn nodd fi ne nodd rek mu jug xutba Aboubacar lim fi ne yëpp genn nodd fi ne Omar lim fi nekk yëpp genn noddu Ousmane atam yu njëkkee ci xilaafa ga genn noddu mu jigi Madinatu a bëri sancaan ruq bu ne gaa yi dëkkee ko mu noonu mu créé geneen nodd tuddee ko ni daawu zawra dañ ko daan noddu ca pegg dëkk ba nit ñi xam ne tey la juma ñi waaj préparé mën a teel a dem ca jumaa ja buñ dajee xee ñi door a nodd nag imaam ji joora du xutba nodd googa nag nga xam ne ci lay imaam di xutba ku fa fas njaay njaay ma jaayuwut dañ koy firi dañ koy firi su ko defee kon mooy noddoog ñaareel ga waaye noddu gu njëkk gi taxul may wax foofu mën ngaa jaay waaye buñ demee ba xas ne allahu akbar noddoog ñaareel gi rek jaay fa xaraam na takk fa jabar xaraam na saraxe fa xaraam na maye fa xaraam na leble fa xaraam na jël fa ampoule waa xaraam na signé fa contrat xaraam na jàpp fa surga xaraam na yooyu yëpp luñ ca def dañ koy firi ba mooy ñaar mooy takk sëy ak saraxe xaraam nañ de waaye kenn du ko tas boo fa takkee sëy def nga lu xaraam waaye kenn du tas sëy ba soo fa saraxee def nga lu xaraam waaye kenn du nangu sarax ba wala maye ga moo tax heure booba ñay yalwaan di eh, di saraxu def nañ lu xaraam yow mi leen sarax def nga lu xaraam waaye doo ko nangooti ndax yonentu tu na ku saraxee nangu ko fa mel ni ku wàccoon ba pare lekkaat ko ab sëy tamit buñ ko xasee takk condition ya mat kenn du ko firéeti su ko defee kon nag moo tax boo fa jaayee wala nga signé fa contrat mbaa nga jàpp fa surga walla koo fa mën a waxanteeg ci jëflante yi rek lu dul ñaar yooyu dañ koy firi loolu la wax Malick ki ne yaxan nañ ceeg Malick ñu ne sa bayu saafi yu ne yi xànd ak saafi yu ne kenn du ko firi def nga lu xaraam rek waaye kenn du ko firi. la gën a wér nag mooy li Malik wax mooy dañ koy firi ndax dafay dugg ci Malik dafa tegtaloo xadis bi yonantu bi ne man ahdasa fi amrina haza maa laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayhi suñ mbir mi ku ca sos lu dañ la koy delloo sos lu nag mooy jaay ci waxtu jumaa bokkut ci sariya ku ko def dañ koy firi loolu la Malik wax beneen riwaaya ba yonantoo wax ne kullu amalin laysa alayhi amruna fa huwa raddun ashaabu sunan yëpp ñu andi xadis booba buxaari yu muslim abu daawuda tirmisi yu ibnu maaja nasaa yi ñoom ñoom ñoo indi hadis boobu ñaari hadis yi ci Malik tegtaloo ne kon heure juma ku fa fas njaay dañ koy firi dañuy yàq njaay ma duñ ko valider su fekkee ne nag li ma jaay faatal naa ko aa ah, mu doon dugub ma jaayaat ko wala ma lekk ko wala ma def ko nangam dañuy seet noona nu poids ba tolloon ci dugub ca melowa ca somba ma delloo la ko nga delloo ma la ma la joxoon ñu firee ko noona su fekkee la nga ma ma nga fa jox ma sama xaalis ma jox la li nga jaayoon xar mi bëy wi nag wi buy lu ñuy peese ma jox la ko su fekkee sànq naa ko ma seet nam tolloon ca xayma ja ca noona maanaam ca dugub ja ma delloo la ko su fekkee ne nag lañ la jaay faatal nga ko waa ji jaay na la fas wala mu jaay la nag wala mu jaay la télévision wala rajo wala frigidaire waxtu wa ngi nottu jumaa ba ba ñu jullee ba pare yàlla dogal lam la jaayoon lakk wala ñu sàcc ko wala bu doon fas deena nu ñuy def fu yi nee nañ su boobaa duñ seet li li la ko jaayee woon mais xayma ja la ñuy seet. dañuy seet ne waaw waa ji fas sàngam la jaayoon waa ji heure ba ñuy noddu duñ waxati lu mu ko jaayee dañuy wax ne fas woowu luy xaymaam ñu ne fas wi de normalement deux cent cinquante mille ñu ne lu mu ko ko jaayee woon ñu ne trois cent mille ñu ne kon da koo nax yëkkatil fukki ju ne delloo ko. wala ñu ne xaymaam de deux cent cinquante mille lu mu ko jaay ñu ne deux cent mille ñu ne waa jële yow ji fukki ju ne delloo ko waa jële kon bu lañ doon jaayante bu faatee te ca waxtu wañ koo jaayantee dañ koo tere te lañ ko lañ jaayante woon faat na xayma ja la ñuy seet waaye duñ wala de njaay ma xayma ja la ñuy seet nit kenn kun delloo ko sa morom xayma ja nag buñ ko seetee mën naa xëpp mën naa xiis mën naa tolloo mu jeex loolu la ci fuqaaw yi wax ca wàllu njaay mooma su ko defee kon tamit euh, yii la njaay yëpp dafa xaraam dugg na ci fukkeel ba ak ñaar njaay mu ñu tuddee bayul yaasin bi bayu bi ay xob la yu ñuy jaay ci ak njëkk yu wutee nit ñi di ko tux yi ñu koy fóon te mën nañ caa jëlee ak màndi yooya dafa xaraam dafay dugg ci buntab yaa ay wàllis na amanu inamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsun min amali shaytaan fajtanibu laalakum tuflihun suratul maayida aaya 9 kon yi la yëpp aaya 90 juróom-ñeent fukk boo demee da ko ca fekk kon yi la dafa xaraam ci lañ dugalaale cigarette cigarette xaraam ko jaay ko maanaam xaraam na boo demee tabaarakallaahu maam alaaji Malick góor ak yàlla gu tedd googa di ko sonn ci xam-xam di ko sonn ci gëstu tabaarakallaahu wax na ko ci téere bu ñuy tuddee kifaayatu raaxibiina boo demee maam alaaji Malick nee na jaay cigarette xaraam na wax na ca boroom xam-xam ya ca wax xaraam gaag la ca xajul lépp boo demee ci diiwaanu kibritul ahmar maam Khalifa Niass Alaaji Abdoulaye Niass ko woon baayam ne ko ñiy wax ci mbiram póon ak tux cigarette bari na ñi xam ñi xamul ñëpp a ngi cay wax yow mii yàlla dogal nag nga am xam-xam dama bëgg nga wax ci loo xam ne kenn du ca lam-lam laati maam Khalifa Niass àbb ko kayit ak big ca la taxaw ca saasa ne alhamdulilahi man bil xamri qad xasama ala al ibaadi wa fi qur'anihi xakama wa maa yudaahihi min misli alxabiisati min karihati natni mimma nassahu al ulama ahlu shariati wa taxqiqi rutbatuhum laa man yaqulu bima yahwaahu muttahama dem na ba ne misli tijaani imaamil awliyaay maan qad kaana xaramahu yaaman bii tasama kon nee na maa ngi sant yàlla mi xaraamal sàngara xaraamalaale lépp lu niru sàngara ci xet gu bon ci sobe ci tayalloo nit yooyu ci yàqaalal yooyu yëpp bu ñu ko waxee cigarette dugg na ca mu ne di loo xamee na nii boroom xam-xam yëpp ñu ragal yàlla ñi d'accord nañu dafa araam boo demee ci kifaayatu téere bu ma lay wax ifhaamu munkiril jaani kon Seydil Haaji Malick ma ngi cay wax ne ñu bëri dañoo fone Seexu Tijaan mooy ki njëkk a wax ne pon dafa araam waaye déedéet am na boroom xam-xam yu ko jiitu woon yu ne pon dafa araam bam mu ñëwee moom Cheikh mu ànd ak ñoom ca loola. ba daana wax ne ku mënta bàyyi galan bi bàyyil sama kurus gi ba wax na ne kuy tux cigarette bu la mayee wirdo sa wirdo wa wirut yow mi tux cigarette buñ la mayee wirdo ngay wirdo subaa ngoon tamit sa wirdo wa wirut maam ko wax ne Seexu ko wax ne amma tariqatuna laysat li sharibihi mulaqanan kaana aw bil kasri qad wusima mu ne cigarette ku koy tuux mënoo ismu faayil ci tariqa bi mooy mënoo koo joxe kuy tux cigarette mënoo ci ismu mafool mënuñ la koo jox yii la yépp bind na ko kon mu ne jaay ko xaram na jëfandikoo ko tamit xaram na kon jaaykatu cigarette yi nañ ko bàyyi xel benn saa yi ngay wax benn waaye dafa ma laaj ni ma waaw euh, duxaan moomu di cigarette euh, ñu koy wax surbu duxaan ndax alquran tudd na ko ma ne ko waaw. waaja way ko ne sa'aluuni ani duqaani wa qaalu hal lahu fi kitaabina imaa'u qultu maa faratal kitaabu bi shay'in summa ariqtu yawma taati samaa'u yawma taati samaa'u noonu ki tagu bi duxaanin mubiin duxaanin jooja ma ngay jundu cigarette boo demee ruuxul bayaan wax na ko ruuxul bayaani ataa fil musni xirmatuhu ruuxul bayaan ne na boo demee ke suratul waaqia yàlla ngi cay tudd cigarette di ko melal suwaasun min naar wa nuxaasun loola lépp mu ne cigarette bay junji loolu nag cigarette a ngoog jaay ko xaraam na jënd ko xaraam na li nit mën a jaay mu mën caa am bénéfice te du nekk cigarette lu bëree bari la kon nag nañ ko bàyyi xel boo demee ca téere bu ñuy tuddee kayfa tataxallasu min usri tadxiin tiitaree ko an nafsul axiir ndeysaanam téere bu yéeme la mi ngay wax ci cigarette ak fa mu soqee ko mi ngi wax ne cigarette tabaarakallaahu ñi ngi ko njëkk a bayee Amérique fa lañ ko njëkk a bayee gàncax ga booba nag lu yàgg a yàgg la lañ ko njëkk a bayee foofa ci Amérique ah gannaaw si gi nag la ñëw dugg ci réewi Europe yi. yaa France ak Espagne ak dëkk yu mel noona ba mujj di ko jarijoo di ko di sa tuux boo demee ku ñu tuddee xaaris safiiru France mooy wax na ñax ji di ko waxal mu ne cigarette loo xam njëriñ la waaye kooku waxam kenn du ko déglu mu ne dafay xoyofal mettitu bopp taxfiifu sadaa naka noonu tamit mu ne bu ko nit ki tuxee man naa yokk xelam ak yeneen ya ci aaju yooyu yëpp waxi dof rekk la ay waxam kenn du ko déglu cigarette dafa xaraam ndax yàq xalal la te yàlla ne na wala tusrifu inna laa laa yuhibbul musrifin rey sa bopp la ki ko liggéey bañ na ko ba ne baaxul ci santé yàlla ne wala tulqu bi aydikum ila tahlukati xaraam na yonent bi nee na kullu mufattirin xaraamun te ñëpp dëppoo nañ ne mu mufattiraat hiyal mufattiru wal iftaaru indahumu raqaawatun tuurisul idraara multasama boo demee ca ifhaamul munkiril jaani bu Seydil Haaji Malick dana la cee wax boroom xam-xam yi wax ne dagan na ak fiñ ko teg teguwaay ba dara dëgëru ci ak borom xam-xam yi wax ne dafa xaraam fañ ko teg ci teguwaay yu dëgër yooya yooya yëpp boo demee da nga ko gis comme moom gëstukat la bindkat la dafay dagale wax yi ñëpp rek boo demee ca téere booba. ca bunt yu mujj ya dana la ca wax mbiram cigarette ak tux gaag jaay gaag yeneen ya ca xaju wax na ca lu bëree bëri ba doona wax na sax benn bis dafa am ku yore cigarette ñëw ne ko dama bëgg nga al ma safara mu ne ko Maodo de am na safara waaye xamul safara wu ñuy taxalee cigarette loolu xamul loolu moom xamu ko bañ ko laaj si Sëriñ Tuubaa mu ne ah jëmm joo xam ne ma nga tooy xepp di di saxaar kooka bu deexee dana gaaw a lakk te tuxkat yëpp ñu saxaar am na si ñoo xam ne ñoo gën a ñoo dàq mën a saxaar oto bu sofe kon yooyu yëpp dafa xaraam nañ ca bàyyi xel kon limal naa la ñaar fukk tabaarakallaahu ak ñaar ci xeeti njaay yu xaraam boo ma toppee suba ci waxtu wi ma sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu njaay yu xaraam yooyu yëpp waaye suba ci waxtu wi lay doon incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh